sëñ bi nee na mi ngi nuyu mbokk yi tedd yi fi teew. ak mboolem taalibe yi sëñ Tuubaa yi. moom de daanaka nag jarul woon dolli dara sax ndax wax na na daanaka darul jarul woon dolli dara sax ndax sëñ Murtala wax na lépp. li ñu waroon lépp li ñu waroon wax lépp wax na ko. li waroon wax lépp wax na ko. tabaarakallahu kon nag cant rek moo fi nekk. fa tabaarakallahu nee na kon rek cant rek moo fi nekk. dafa mel ne nun sant don dong dong don moo war a liggéey. sant dong dong dong moo war a doon sunub liggéey. lii bi ma koy xalaat itam. nee na lii bi mu koy xalaat itam. waaye ñoo xam am nañ yàqin ci ne sëriñ bi. boolewul a dara boolewul a dara ak boromam. nee na am na yaqin ci ne sëriñ bi boolewuloon woon dara ak boromam. léppam léppam léppam léppam mi ngi woon diggante boromam ak yonent bi. léppam mi ngi nekkoon diggante boromam ak yonent bi sallallahu alayhi loolu nag waxuma sax nuyu seen pëndam waaye dégg ko rek daanaka euh, doy na xéewal ci noonu. nee na waxul sax seen pëndam waaye dégg ko rek doy na xéewal ci noonu. kon nag loolu la jëy suñu wartif mooy sant ko rek. nee na loolu la cay sunu warteef mooy sant ko rek. sant gi bi ma koy xam lii lii bisu eh, koy xalaat dama xalaatoon ajjuma ju ñëwati rek ñu def ko ni ajjuma ji tey. nee na bi mu koy xalaat dafa xalaatoon ajjuma ju ñëwati rek ñu def ko ni ajjuma ji tey. waaye nag dama seet seet doy doomu aadama ak yitte yu bari yeeg artificiel bi yeeg yooyu yëpp ma xam ne loolu itam nag. kon mat na sedd nee na waaye dafa xool doye doomu aadama ak yitte yi ak gàllankoor yëpp mu xam ne kon yooyu yëpp mat naa sédd. bi ma xalaatee ne aju ajuma bi ñëw ko war a def boo wàññi ko defoon ko ñetti weer ñetti ko ñeenti ajuma ci weer bi. nee na bi mu ko xalaatee euh, euh, daal ne nañ ko def kon ñeenti ñeenti ajuma ci weer bi. loolu itam ma xam ne ba tey rek. Eh, faw rek eh, suñu doyadi ak suñu jotadi eh, danañu gàllankoor ba xëy na loolu itam dafa dana daal di bëgg a doon fitna mu mu wàññiwaat ko. mu daa mu xam ne ba tey suñu doyadi ba tey ak jotadi gi dina tax ba tey dina doon suñu fitna mu daa mu wàññiwaat ko. ma ma def ko nag ma ma ma xalaat ko nag nu def ko ci jamono yii nu toll. ñaari ajjuma yi ajjuma ju tey jii ak bu delsee ñu dolli ko ni ñu ko defee woon rek ñu defaat ko ni mu jàpp nag ne kon nañ ko wàññi nag def ajuma ji ñu ne ak bu dellu see ñu defewaat ko nii ñu ko defee rek tey ji ah, ci li nu jëm itam lépp itam lépp rek li nu jëm lépp lépp lépp ñeebal sëñ Tuubaa gi ñëpp eh, bàyyi ko xel eh, def def ajjumay Tuubaa ji ñu wax waxtu ñu ko mënee rek ñu ñu ñu yeesal ko peq. nee na nag li nekk suñu kanam nag njabootuk sëñ Tuubaa gi ñu xam ne rek li nekk suñu kanam lépp lépp lépp waxtu woo xamante ne mënati naa am rek nañ ko delloo si waat xam ne ajumay Tuubaa ji dafa war a wéy rek ñu ànd ko jàpp ko di ko sàmm. loolu yeesal ko tax. loolu loolu loolu li ko waral mooy mooy ni ma ko jëkkee woon a waxee rek sëriñ bi. boolewul ak dara ak boromam dundam gépp gépp gépp gépp jox na ko boromam lu boobam ak yonent bi ko jox ndigalam nee na mooy ni mu ko waxee woon rek sëriñ bi musta boole dara ak boromam nee na ak yonent bi saasan bi nga xam ne moo ko ci joxoon ndigal boromam ñàkk ñàkk ñàkk solo nag war nañ ko war nañu nañu war nañu jóg euh, am past pastif fas yéene sax dàkk ci sant sant ko sant ko ci wàll yëpp digg ma boromam digg ma yonent bi digg ma boppam suñu digganteeg moom lépp ay cant la yoo xam ne dañ caa war a sax dakk di ko def. nee na kon nag lu ñu doyadi doyadi nag war nañoo xam ne nag war nañoo sax ci sant ko ci lépp nag anam yëpp digganteem ak boromam digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak suñu digganteeg moom ak su lépp rek lépp rek war nañoo. ak digganteem ak boppam lépp rek war nañ koo sax di ko sant saa su ne. kon kon loolu loolu moo waral nag kon eh, ginnaaw moom boolewul ak dara ak boppam te dundam gépp jox na ko boroom ba mu jeex takk te dara dar dara des disewu ca dara loolu nag kon ñun ñu am tawféex yi jin suñu borom booleek moom nu nekkal ko fi kon war nañu góorgóorlu bu baax ci fas yéene sax ci sant ko cant gi nag mooy nii nu koy nii nu ko defee nam ko gën a le rek nam ko gën a le rek ku ne xam ne zikru laay ku ne xam na luy dara jaam ci lislaam alquran ku ne xam na luy dara jaam ci lislaam ndax laay di sëriñ bii nag moom mooy sunu mooy sunu xaas nee na kon nag lu nu doyadi doyadi da na xam ne war nanoo sax ci di ko sant moom sëriñ bi euh, te cant gi nag nee na ñu di ko defee ñu di ko defee ni mu ko gënalee ci diggante alquran ji ak zikrullahi ji euh, waaye xasaayit yii nag nee na mooy suñu xaas nañ xam ne mooy bu ñu ko jubloo sante ni mu ko gënalee xaside yi nañ xam ne mooy sunu lépp mooy sunu xéewali tey mooy sunu xéewalu ëllëg mooy sunu ndamal tey mooy sunu ndamal tey mooy sunu ndamal ëllëg kon kon kon bu baax góorgóorlu bu baax nu góorgóorlu bu baax kon nu góorgóorlu bu baax. fonk gën a gën a gën a gën a fonk xasida yi. gën a fonk xasida yi. mooy suñu lépp. ndax mooy sunu lépp. mooy sunu tata. mooy sunu tata. mooy sunu xéewal. mooy suñu xéewal. mooy sunu ndimbal. mooy sunu ndimbal. mooy suñu lépp. mooy sunu lépp. tey ak tey ak ëllëg nag. defaru teeg ëllëg rek. defaru teeg ëllëg rek. fonk xaside yi moom. fonk xaside yi moom. defaru teeg ëllëg la ñuy indil. defaru teeg ëllëg la ñuy indil. ndax sëriñ bi lu mat a ña lu mat a fàggu digg digg ba boromam. ndax sëriñ bi lu mat a fàggu digg ba boromam. fàggu na ko fàggu na ko. te jubóo na ceeg boromam. lu mat a ñaan. lu mat a ñaan. ñaan na ko. ñaan na ko. te boromam may na ko. te boromam may na ko. kon nag ñun sant dong nu war. kon ñun nag sant dong moo nu war. góorgóorlu bu baax rek. bu baax rek. fonk defal nekkal ko ci li mu bëgg. nekkal ko ci li mu bëgg. fonk xaside yi. fonk xaside yi. sàmmal ko alxuraan. sàmmal ko alxuraan. sàmmal ko lislaam. ko lislaam. ak ak lu bokk ci lislaam. ak lu bokk ci lislaam. jaay suñu jox suñu dund nan ko jox suñu dund gépp. nan ko jox suñu dund gépp. liggéeyale ko ko. liggéeyale ko ko. jox ko ko. jox ko ko. loolu rek mooy suñu warteef. loolu rek mooy suñu amuñu beneen warteef. kon nag jërë ngeen jëf. ne ko nii ko sëñ Mourtala waxee rek nee na matal na lépp alhamdulilahi rabbil alamin lii xéewal gu rëy la njabootu sëñ Tuubaa gi toog mbokki taalibe yi toog mbokki taalibe yi toog ñu nekkal ko ci li mu bëggoon ñu nekkal ko ci li mu bëggoon ba waxtu wii alhamdulilahi rabbil alamin loolu xamuñu lu nuy sante waaye nañ sax ci lii nag bàyyi xel bu baax bàyyi ko xel bu baax sant lenn. sëñ bi mënuñu koo sante lenn. lu nekkal ko ci li bëgg rek. lu nekkal ko ci li mu bëgg rek. nekkal ko ci li mu bëgg rek. nekkal ci li mu bëgg rek. nekkal ko ci boromam rek. mooy nekkal ko ci boromam rek. suñu kem kattan. suñu kem kattan. suñu kem kattan rek. fonkal ko fonkal ko fonkal ko lislaam ji. fonkal ko lislaam ji. bàyyiwul dara wane na lépp. bàyyiwul dara wane na lépp. wane lépp kon nag nan góorgóorlu rek. kon nag nan góorgóorlu rek. sax sax ci dàkk. sax ci dàkk. mooy suñu defaru tey. mooy suñu defaru tey. di suñu defaru ëllëg. di suñu defaru ëllëg. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. waaw nee na nee na li ci xol bi mënee su ko wax waaye nañ xam ne xolam sedd na ci nun guy xel xelam dal na tiix ci ñëpp. ma sama waaye wóor na ma ne yéen seen sëñ Tuubaa dëggu na ci yéen waaw jërëjëf Mbàkke jërëjëf Mbàkke nee na sëñ Tuubaa na ci nun ku sëñ Tuubaa dëggu ci yow nag te ku sëñ Tuubaa dëggu ci yow texe àdduna ak àllaaxira rek ngay am jërëjëf Mbàkke na ñëpp tàllal seen loxo na ñëpp tàllal ne sëñ bi waaw nee ko sëñ sëñ Moutala nee na Mbàkke nun ndigal ndigal ndigal lay déglu nee na sa ndigal rek la ñuy déglu mën na noonu ajuma ñu nekk mën nañ ajuma ju ne ñu defee ko nii du ñu wàññi dara jërëjëf Mbacke jërëjëf na ñëpp tàllal seen waaw incha allah waaw Mbacke. li ci dolli ko rek mooy. Uh-huh. nit mënut a neen. nee na. li ci dolliku mooy nit mënta toog loxoy neen. bu nekkul ci lii. bu nekkul ci lii. nekk ci leneen lu ñu amalul njëriñ. nekk ci leneen lu ñu amalul njëriñ. wala wala ñu bañ a nekk sax ci dara. wala ñun bañ a nekk sax ci dara. kon nag nañu góorgóorlu bu baax kon nag nañu góorgóorlu bu baax. sax dàkk ci nekkal sëriñ. daal di fas yéeneen sax dàkk ci nekkal sëriñ bi rek. jërëjëf jërëjëf Mbacke jërëjëf. ilayya qaada allahu yawmal jamaa ملكني الجامع يوم الجمعة ما لي وحدي اختاره وجمع ملكني الجامع يوم الجمعة ما لي وحدي اختاره وجمع